ñu ñëw ci laaj bi nga xamante ne mooy mujj ci suñuy laaj mooy lu jëm ci muurum koor ak korite ndax muurum koor dañu ñépp a ko war a génne lu ñépp di génnee nag kon ku koy jël ci sama laaj ku koy jël ñaareel bi moo di ne kori ndax borom bi moom dafa waxoon ne nañu matal lim bi wala dafa am feneen fu mu ñu wax ne kat nañ ko nañ ko nañ ko feete wala tamit dafa wax ci muuru koor dafa nekk lu war loo xam ne ku ko génnewul sa koor du nangu waaw ah, kay macha allah imam Mamadou Gueye wax dëgg yàlla sa laaj yi euh, laaj bu ci ñëw rek danga naan bii moo ci ëpp solo ndax xam nga ñun dañ ñëw sëfoon sëfoon ñu lu ne gëmloo ñu lu ne daanaka suñu bopp yi فنخل كو بامو فنخ تي اي گم گم يو خامني امول بن ديلو واي داخ ليغا واخ ني ريك لول بان سما خيل سا دا تي گين ليغي موي لي ني واخ كور اك لانچ را واخ نيت كي سوكو گيني وول سا كور دنج كوي اك فوج كوي اك اك لوج كوي اجال ليغي صاح ياغي گيس تا لول دا اب حديث لا بن كو جانغالي وون te yooyu yëpp ay politique la woon yu ay nit dugal ci diine xam nga diine maanaam am na ci loo xam ne ngir nit mën ko comprendre dëgg-dëgg ñun li ñuy wax tey dellu ci téere bi yàlla bëri na ci loo xam ne nit ki su ko bëggee comprendre maa na dem gis ji histoire li xew ginnaaw yonent bi dana bëri ko leeralal l'islam dafa bëri luñ ci dugal loo xam ne ay mbiru politique rek la woon teguwul woon fenn ñu gëmloo ko nit ñi nag yaxal ko ci ay téere nit ñi dem ba jàpp ne loolu mooy li wesa ba ku ko deful yow dara fekk la ci xam nga xam nga ku toll nii yàlla digle woor cib weer ñu ne la léegi yow weer wi soo ko wooree ba mu mat soo génneewul lu ñuy wax zakatul fitre mooy li ñuy wax muurum koor wutal ko ab lim ak na mu war a tolloog xeet boobu sa koor nañ koy aj ah, soo waxee ne léegi maanaam su ko ñëpp joxee kuñ koy jox dañ daana déet ma am na ñoo xam mënuñ koo joxe parce que ñu ñàkk ñi loolu lañ lay su boobaa waaye solo si du foofu solo mooy yàlla moo digle koor wax li mu bëgg ci koor ak li mu bañ ci koor waxtu waxtu wi ñuy tàmbaleek waxtu wi ñuy arrêté te zakatul fitre moomu ñi ko nit ñi di déggee ni mu fooree amul fenn fu ko yàlla wax waaye léegi ndax lu yàlla digle lu yàlla diglewul mën na koo yàq ndax lu yàlla digle lu yàlla diglewul mën na koo yàq yàlla digle koor diglewul zakatul fitre ñu ne léegi soo ko génnewul dañuy aj sa koor donte léegi sax wax dëgg yàlla jamono yi gis naa euh, ci sunnit yi ñenn ñoo xam ne sax dañuy génn di dàq loolu di wax ne wax jooju wérul nekkul loo xam ne ci yonent bi la koo xeet boobu te loolu doon sant yàlla soo ko génnewul dañuy aj sa koor ñu ne loolu moom wérul parce que li ñuy wax ne maanaam farata sunna du ko yàq loolu la ñuy wax ñoom doonte sax mooy li may wax rek suñ ne sunna la rek mooy amul preuve amul fenn fu ko yàlla jàngale zakatul fitre diggante boobu ñu wax aaya 183 ci Baqara ba aaya 187 ku fa dem doo ko fekk comme zakatul fitre moom nekkul lu yàlla jàngale règle yeen cey tëral ak lañ cey wax loolu yëpp nekkul lu yàlla jàngale yàlla daal li mu santaane ci koor ci diggante boobu la ko wax ci alquran comme ni ñu koy waxee looleen fa fekkul du diine tout court du diine